naa leen am mbégte saa su ne jàkkaarloo chaîne chaîne bi di STV bi tey nag maa ngi fii nag dëkk bi ñu naan Thiès ah Thiès bi nga xam ne mooy Mbaye Dobe ñëw si li nga bi nga xam ne mooy Jaxaaf seen Mbaye nuyu naa la. mais maa ngi leen di jaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax. ba yaa ba yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax. Ah, waaw yéen sant sant yàgg sant bu baax. Mbaye tey fii génn nooy na tey lu war a tey nga def nii nii nii nii. waaw bis bi moom dafay spécial. Mhm. xam maye li nga xam ni ñu ko bëgg bëri na. suñu borom defal la ko da kontaan loolu ak cant. Mhm. Hmm. si am doog. Mhm. waaw maanaam mu am tout tànk bu jigéen. Mhm. di rafet rafetlu lool tey. Mm-hmm. di tudd. Mm-hmm. ak fi réew mi toll. def ko ni ko président de la république bëggee rek ñu defee ko noonu. Mm-hmm. loolu su may xarit ak samay am di jàmm. tuddee ko nag koo xam ne dafa sori ci man. ndeysaan waaw muy tulli. tulli ah tulli mu nekk si seen waaw maa la wax ci loolu. mooy suma premier njëkke. moom suma ñaareel doom tuddee ko. nekk fierté neex ma lool. dëgg la ngeen ñëw seet si ma yem ci. kon day gën a neex. lan ma sa relation ak tuddee doom. posé nga ma question bu ma neex. Mhm. maa ngi moom yàlla daf ñu boole soleil levant. Mhm. te yaakaar naa ni boobu ba léegi maa ngi ci quinze ans de carrière macha allah je touche du bois. Mhm. boobu léegi ñu ci ànd soo xeful xam naa ni 5 ans la àndul mais 10 ans yëpp ñoo ko ànd. te lu yàgg lu nekk dëgg la. soo nee diw duma ko topp daf fekk fi ngeen jëm moo soriwul. dëgg la maa ngi moom fi ñu jëm dafa sori. di ànd. nekk ci lu nekk. ànd ci lu nekk dara musul ñaaw nekk lu dëggu ci man yàlla ma soxna ma may ko première njëkkee ci ànd ànd bu rafet suñu borom weddi euh, dogal ma amat beneen soxna mooy mhm. wax soxna ma dem Touré mhm. euh, am ci suma taaw tuddee ko suma maam li nga xam ne mooy maam Sali euh, foor man lool bi mhm. ko tuddee amul lenn lenn lenn lu mu ci wax ma xam ne kii tur moo ko yitteel lenn moo ko yitteel bëgg ma bëgg moom moo saxu ba léegi. def ci dooleem def ci léppam. Mm-hmm. suñu borom dimbali ma ma amaat euh, beneen doom muy jigéen. ma ne daal wax dëgg yàlla damay jël tur bi duppee ko ki nga xam ne moom mooy Dieynaba Selli Ba. na Dieynaba Selli Saw. Mm-hmm. ñëpp xamee ko ci Jeew Saw. mu julli waaw lool daal moo waral euh, relation bi. waaw tey loo war a tey suñu teewaay fii ñu ngi nekk fii Kër Mbaye Dozé tey muy tudd comme ni nga waxee yi nga dégg ci ay biir waxam tey muy tudd ki nga xam ne mooy doomu tuddee duppee ki nga xam ne mooy Dieyna Mbosso ñu gën koo xam ci Tulle mais mbay waaw mooy li may wax rek xam nga Olof Njaay moom dafa am lu mu leen mhm. euh, liggéey mhm. booy liggéey ba ci benn instant mhm. bu nit ñi di nekk ci bu nit ñi parce que ñoom man li may wax rek mooy liggéey euh, travail d'équipe la que dañuy jékki-jékki bind benn scénario ne ñii ñoo koy liggéey. Mhm. gis ngeen ni Soleil Levant bind na benn scénario boo xam ni. muy mhm. choix. waaw ñu koy liggéey. Mhm. ak yeneen personne ñu dëkk Dakar. waaw donc amaana ñoom loolu la ñu donc def ko. du détail. du leneen. ñun gis-gis boobu la ñu am. slogan boobu la ñu ñu def ko. ñun aussi ñu nekk ci benn wàll bi. aussi di liggéey. donc ci euh, fan yu néew. donc dinañ gis ni ñuy liggéey. parce que ñun ñu ngi liggéey pour site bi. Mhm. donc ñu ngi liggéey aussi tamit pour télé mais gars yi ñooy am tendance que bu ñu la gisul télé rek. Mhm. pour ñoom da nga toog benn place. dëgg la et pourtant bu la gëstoo. Mhm. suivre la. ci site bi nga nekk. dañuy am say actualité. dëgg la dañuy xam ci li nga nekk. dëgg la donc foofu rek la toll. mais bu ñu xam ne kañ nga dugg si biir soleil levant. soleil levant soleil levant quatre vingt quatre vingt deux mille ans. deux mille deux mille. parce que Soleil Levant Junior ñu ngi ko commencé presque euh, quatre euh, vingt dix mhm. sama xarit bi euh, dem si yàlla ci Kader. Mhm. donc moom moom indi woon ci Soleil Levant Junior ñu nekk ci nekk ci nekk ci presque deux mille cinq mhm. waaw deux la ñu def tolof tolof te loolu mu daanaka mu mujj parce que am nañ askan law beeg làmb bi lañ def waaw yaakaar naa ci boobu la ñu njëkk a woo ma nekk ci produit boobu di liggéey mais dama léegi si ay nit wax ñu ne kii di Mbaye bokk na si ñi nga xam ñoo créé Soleil waaw mën naa wax ni. Mhm. su dee bu dee Soleil Levant euh, junior. Mhm. ci ñu ko créé ci la bokk. Mhm. Soleil Levant senior dama leen fekk ñuy ànd ci nit ñi kuy Seydina. Euh, Jojo. Euh, Cheikhouna. Euh, Sanex ak Mangasi euh, ñooñu bokkoon nañ ci ñuy ànd après le mii tey ñëw xam nga donc ñu nekk ci man aussi tamit ma accompagner leen ci ñu ko fondé waaw maanaam bi mu commencé tax koo yàgg dara noonu après man ma ñëw yàgg naa ci nag mhm. yàgg naa ci mais danga à chaque fois ci théâtre ki nga xam ne mooy Ndeye Coumba day nekk sa yaay loolu affaire yaa kii yaa ngi day gumba waaw dañuy gis ne dafa compatible mhm. donc parce que moom ci ci ci ci jamono nii nii nii mhm. dafa gis ni ñuy dundee noonu mhm. dafa naturel toujours yaay booy laa koy wax mu naan ma euh, sama doom donc aussi sama nijaay bi nga xam ne moom moo ma yoroon bi sama magu yaay euh, Boubacar Diop yàlla na yàlla yeddal euh, seral yaxam dénkoon ma ko dëgg la moom muy doxal loolu. ba tax na daal mm-hmm. saa yu ñu boolee rek. Mm-hmm. moom su ma réewee daf ma koy accepter. Mm-hmm. moom aussi ay cap caprice euh, dama ko koy accepter. loolu moo tax euh, affaire bi di di di di rafet. donc ñu gis ni dafa nice rek ñu ne ah tout le temps donc ñu ñu ma koy jox. xam naa wax nga ci mais dinaa bëgg a waxaat ci xam nga mbay à chaque fois da nga daan toog naan ñaan nga yàlla bis ñëw nga dem ba taxawal li nga xam ne mooy téléfilm lu nga doon wax. waaw mais ñu gis ni waa waa Soleil Levant créé nañ téléfilm ñu si yeneen tet. gis ñi ku ci mel ni yow muy ay Seydina ay Tuxsi ñoom ñëpp kenn gis leen est-ce que nekkul yéen seen match yu xëy dafa eggul foofu wala yéen li ñuy def ni ñoom ñoom li ñu soxla hmm. yéen daa mel ni mënoo leen ko moo tax jëlee ñeneen ñu bees non non non loolu moom dama koy wax sénégalais pour ñoom ñëpp ñu mën ko comprendre hmm. àdduna wërngël képp parce que man du wax ci du wax en détail hmm. man en gros laay wax loolu waaw di nga ko faral di wax say wax de loolu moom amul ma dem ci ñoom loolu bu ko nit xalaat bu bopp yi ak suñu yax yi ñu tàggat ñu ko ñoom Ah, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk je pèse bien mes mots mhm. su weesoo waxuma waxuma Soleil Levant de mhm. waxuma euh, Saner waxuma Jojo waxuma Cheikhouna mhm. waxuma Sumbul mais ñeneen ñi fa nekk maanaam ci question boobu nga jël ma ne nag euh, naaru góor du ndaw noog mbayaa loolu li tubaab naan yàppaa photo yàppaa photo ah. bu ma tëddee di nelaw buñ ma yeewee xajuma ci ñoom ak keneen ko mel ni man dama leen di nangul nag lañu am mën nañ ko trop ci liñ leen jox aussi tamit mën nañ ko macha allah mais sa question rek laay tontu. waaw ñii seetaan. waaw bañ ci am ñëpp dañu ni mbay moom daal mu nekk ci ginnaaw Ndeye Coumba saison Ndeye Coumba di nekk yaay moom la gën a aay. que choix bi ñoom ñu taxawal gisuñu ko ci loolu rek moo tax gisuñu ko ndax mbay moom nekk fee di xewoon tout ak ay caprice loolu la mën mais bu nekkee choix bii nii mbay amu fa yoon amu fa eh, place. li ngay laaj yow en personne yaa koy laaj wala nit ñi ñoo koy laaj. damaa nit ñi si boppam. nit ñi ah. Hmm. xamul leen jaaxal. ñi nga xam ne ñoom ñoo départ doo soleil levant muy hmm. yow ay ñoom Seydina ay ñoom Tuxi ak ñoom ñëpp noonu. Hmm. bi di soleil levant départ bi ñu ngi noonu. mbay mosu naa sa benn wax nga ni. bis ñaan nga yàlla dem ba taxawal lii di téléfilm. waaw ñoom ñu taxawal téléfilm. mbay gisuñu la ci tànk. waaw non déggoo li ma la wax de. nit ñi si boppam ñoo koy laaj. ñun membre yi nga xam ne nekkuñ ci choix. ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla réaliser sa bopp loo moom. Mm. te ça n'a rien à voir ak Soleil-Levant. Mm. équipe nationale la. yow su ma amee tey sama liggéey bopp. Mm. am naa plein droit bind sama scénario. Mm-hmm. réaliser ko woo samay artistes gérer ko mu nice. loolu ça n'a rien à voir. dama ne ñoom slogan bi ñu am pour liggéey. ñoom xëy na gis seen gis-gis la. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. te ba léegi nii tooguñu ci ba léegi wax. ku nekk lii moo tax ñu def ko wala lee tax ñu def ko ñoom bi ñu ko defee ñun dañu toog rek di leen seetaan. parce que loolu moom mais yooyu demoon leen wax leen. non non non loolu da suñu que ñun mosuñu taxaw di wax ni lan moo tax joué ci film bi parce que euh, Mbaye Dose ku koy naataamle da ngay commencé ci askan ndaw bi làmb ji. Mhm. ba romb mbay bees yi. Mhm. ak yeneen ak yeneen nga teg samay œuvre nga xool ko. Mhm. jeu bu nekk différent jeu lépp lu ma bëgg muy cinéma. dama koy def muy série dama koy def muy théâtre bi nga xam ne mooy ay sketch dama koy def mm. kon loolu noonu franchement amul pour man liggéey boo xam ne la rek dama gis ne ñooñu ñoo ko war a entamé ñu entamé ko te du yàgg ci kanam tuuti ñëpp dinañ toogaat ñëpp dinañ toogaat dinañ waxtaanaat te di nga gis beneen façon liggéey mm. bu boobaa di nga xam ne euh, ñi ci kaw mm. yóbbaale wuñ ñi ci suuf de Mm. parce que saa ñi ci suuf sax dañuy ñëw diwaan ñu ci kaw loolu la yàlla dogal. dëgg la xanaa ah, gars yi léegi leer na. donc man xoolal dañu ma ko yóbbu à chaque fois boo nekkee laaj ñun mbay du nekk ci choix du nekk ci choix xanaa léegi. dama ku ko seetaan dina leer sa. dama ne boo seetaanee commentaire choix. Mhm. da nga yaakaar ne man dong bu dee fan <laughs> boo xoolaatee commentaire yi nekk fan su tuxusu da ngay yaakaar ni tuxusu rek moo war a nekk ci film bi mhm, mhm. parce que xam nañ suñu casting xam nañ lu ñu mën ak lu ñu mënul mais li muy mooy choix dafay am il faut nit ñi di nangu loolu fan si nag dama leen di comprendre mhm. dañ lay nangu ci télé bi dañuy bëgg say bagage dañuy bëgg say feem mhm. man aussi noonu mhm. la la waaw kon leer na waaw léegi dañuy bàyyi nga rajo càkkatoo rek ah. waaw di leen wax ne a ma taamu la deuxième fois ñuy def euh, émission a ma euh, bi dem ma nekk télé bu ma amiin mbuur ñëpp di ci bàyyi xel. amiin waaw mu mel ni TFM. amiin waay wala mu romb ko. parce que tamit tox tox moo gën yure. dëgg la te ni ngeen ma taamoo noonu laa leen taamoo. dëgg la kon yàlla na yàlla def jàmm. parce que yéen a ngi seet si artistes yi. Mhm. doo sonn doo leen tay mhm. a ngi waxtaan ak ñoom ba pare xam ngeen li ngeen di posé. artistes yi. Mhm. question yi ngeen di posé artistes yi xam ngeen ko. Mhm. man seeti nit ki. Mhm. donc di dugg ci yeneen détails. wala di dugg ci yeneen gamme. man bëgguma loolu. la soo respecté la personne rek. man dama lay respecté te foo ma woo. damay ñëw ma taxaw parce que wax askan dëgg la mais demal benn ko benn xale bu góor bu nekk suñu kër Modou Xabaan Modou Xabaan moom nee na fa bëgg booba demee ngir yàlla dama mbéy délicaté ni ma Xabaan pour àdduna bi nee na da sa fan sa la ndeysaan dëgg la waaw baan Modou Xabaan Mbaye Dose mi ngi lay ziar bu baax di la béggee wax ne ni mel ci man rek Mmh. laa mel ci yow. Mmh. ndax euh, borom baax nga. Mmh. yàlla na la yàlla defal jàmm. bis na ki tey moon xabaar. jàppal ni mbay dose. da lay waaw te dinaa la seet si spécialement may la jooy. <laughs> jooy xam moom dinaa la ko may amul waaw nee ko waaye tey wuur xaw tey xam tey bisu jooy tey bisu mbégte la bay de day tudd doom moo tey kenn du la jooyal waaye dégg nga ko yóbbante bi xanaa externe boo ko saaree di ko kontaan di ko jaajëf bu baax baax bay ndeysaan nit ku baax nga nit ku oyof nit ku yàlla baaxal nit koo xam ndeysaan zéro faute yàlla na la yàlla fal cat yàlla sàmm la aar la mbay mbay réj mi benn ñoo xamante bi macha allah da baax daal yàlla na la yàlla defal jàmm